M-Media Group Nourou Darayni bokki taalibe yi bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaanal Seexna Alxadim Seexna Alxadim subhanahu wa taala nu ko di ñaanal bu baax Seex Muhammadul Muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool ba lim yéene liggéeyal lislaam ak njabootug lislaam mu àggale ko fu kawe njortam ci barkeb alquranul karim dellu santa si borom bu baax a baax bim nu mayee ñu dikkaat ci barab bii di ëttub M-Media Group Nourou Darayni fas yéene dikkaat ci sunu jataayu jigéen ñi mooy sunu émission zaadu nisaa'il muslimaati li nasihatil mu'minina wal mu'minaati doon jataay boo xam ne noo ngi koy amale fii ci ëttub M-Media Group Nourou Darayni doon jataay boo xam ne jataayu fàttalente la waaye jataayu bu laayante biir la ngir li alquran karim wax ak li xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jataay la boo xam ne dañ ci laayante biir ak sunu bokki soxna yi di ci fàttalente ak sunu bokki soxna yi waaye du yem sax ci sunu bokki soxna yi waaye mbooleem taalibe yi waaye mbooleem jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi képp koo ci xam ne suñu borom subhanahu wa taala namm na ci sag jëriñu mu mel ni jataay yi nga xam ne moo paase noo ngi woon ci téereb Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moo tudd wasiyatu soxna Penda Diop mu am ci ndénkaane yoo xam ne moom la doon dénk kii di soxna Penda Diop am ay tomb yu ama am solo yoo xam ne boo ci tegee sa tànk rek ci jëfe la muy wax mën nga mucc àddina ak àllaaxira waaye boo moytoo ba tegoo sa tànk ci moytandiku la nga xam ne moom lay tere foofa mën nga mucc àddina ak àllaaxira tomb yooya bokkoon na ci la sëriñ bi doon digal soxna Penda Diop mooy muñ ñëwoon nañ ci muñ ana lan mooy muñ lan mooy njariñ lenn ci njariñ yi nga xam ne nekk na ci aji muñ ji wa ci tege mooy taqwa ana lan mooy dëgg-dëgg taqwa ak lenn ci njariñ yi nga xam ne nekk na ci taqwa naka noonu euh, ñëw nañ ci benn ci tomb yi mooy tawba te mooy tuub lan mooy dëgg-dëgg tuub ak la ca aju ak lan mooy lenn ci njariñ yi nga xam ne nekk na ci tuub ba ñëwoon ci fi koy dénkee alxumulu te mooy giim mooy di nëbbutu euh, fi nga xamee ne ñi nga xamee ne kon ñëwoon nañ ci ba agsi ci fi sëriñ bi di dénk soxna Penda Diop mooy duumi alal xumuli wa sa wal tux fi di sawtaki dëhëran tushkari na nga sax ci di nëbbu mooy di géem tey sutural sa bopp tey suufal sa kàddu diirub jamono ñëwoon nañ ci lan mooy alxumul dëgg-dëgg géem mooy lan mooy ak sutural sa bopp rawat na ci jamono jii nga xam ne jamono jun toll jamono ji nga xam ne ci lan toll mu mel ni li ëpp ci nit ñi rawat na jigéen ñi lanu gën a bëgg mooy fësal seen bopp fësal seen bopp ci fësin woo xam ne lislaam gërëmu ko ci seenu waxiin seenu doxiin seenu xoolin ak seen ak ak la nga xam ne lépp moo ca amoo ca aju ci wàllu ñàkk nëbbutu gi nga xam ne moo fës ci soxna yi ñëw nañ ci ba yaatal ci lool ba indi eh, tabarruj ni alquran waxe ne waxarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula loolu moo taxan ñu yaatal ci tabarruj wa ma aybuhu eh, lan mooy tabarruj ma huwa tabarruj wa ma lan mooy tabarruj ak ayib yi nga xam ne moom la ci làmbool ci tabarruj ci xeeti tabarruj nan ko waxe ci waxin ya jëfin solin ya ak la ci aju noonu atabarut ma asiyatullahi wa rasulihi bokk na ci tabarut mooy mooy yàlla la ak mooy yonent bi sallallahu alayhi wa man yaasi llaha wa rasulahu fa xaafalahu naar jahannama xaalidan fiha wala xaalidiina fiha bokk na ci atabarut kabiratun mubixatun bokk na ci atabarut min sifaati ahli naar tabarut bakkaar bu màgg boo xam ne bu rëy bokk na ci itam ci melokaanu waa sawara a tabaruj fahishatun tabaruj naka noonu jikko la ju ñaaw a tabaruj tahtaku wa fadihatun tabaruj day xotti war ma itam te it day waral ci nit ki moo am day waral ci nit ki eh, ak toroxtaange bokk na ci itam wax na ne a tabaruj eh, sunnatu iblis yoonu iblis a tabaruj mooy sunna mooy sunnaas iblis sunnaas iblis buñ ko waxee mooy yoon wi nga xam ne iblis ca jaar waaye képp koo xam ne moom nga nam ma topp ca jaar moom tabarruj daf cee bokk bokk na ci tabarruj min sunnanil yahud wa nasara yoon yi nga xam ne tam ay ak nasaraan yi dañ cee jaar tabarruj daf ca daf bokk bokk na ci tabarruj eh, lu ñaaw la at tabarruj jaahi at tabarruj al jaahiliyati xabiisatun lu ñaawa ñaaw la bokk na ci atabaruj alxayawaanaat wa taxalluf wan xitaat bokk na ci tabarut mooy eh, jikkooy jikkooy jikkooy jikkooy jikkooy jikkooy bàyyi ma jikko yu suufe lool jikko yu suufe lool moo ci aju mooy nii tudd ak njaay àllu mooy nit ki bu demee ba jikko ji nga xam ne jikkoom jikkooy njaay njaay àll la yor amutut kersa ci fa muy dem wala la muy wax wala ni muy toogee wala na solo loolu lépp ak day dugg ci ak njaay àllu nga xam ne amatul kersa daanaka daanaka sa jikko mu jikko bàyyi may rek ñoom ñoo yem loolu lépp waxoon nañ ci ba yaatal ko ba yaatal ci wallu tabarruj lool nga xam ne la ca aju moom mënees koo jeexal rawat na suñu jamono ji nga xam ne ci lañ toll Sëriñ Tuubaa waxoon soxna Penda Jóob ne duumi alal xumuuli na nga sax ci di nëbbu waaye nëbbu googee nag dafa mel ni dañ koo safaan ci jamono yi ñu toll mooy foo toll na ngay bëgg a feeñ feeñ ci mel ne écran yi wala lu ko ci géew yi wala ci ëtt yi wala feeñ ci mbooleem feeñukaay yi nga xam ne moo xew ci jamono da ca feeñe feeñit woo xam ne feeñit woo waar la woo xam ne waru sax nag feeñ ci sa ci sa ci sa ëtt bi nga nekk waaye yematu yemante yem yemaleetoo ko ci ëtt bi nga nekk nga génne ko ci pénc mi yemale ko ci penc mi nga génne ko tasaare ko ci mboolem adduna bi kenn ku ci nekk di ci jot te lépp nekk jikko joo xam ne ju lislaam ŋàññi la ju lislaam xarab la jumu dàq la ci ab jullit rawat na jullit bu jigéen bi nga xam ne dafa war a nekk ko sàmm ndax li suñu boom def ci moom ëllëg mu war a indi njaboot goo xam ne mooy gindi jaam ñi di leen teg ci saatal a kon kooku dafa war a nekk ku sell koo xam ne li alquran karim wax wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbihi wallasi xabasa sala yaxruju illa nakida kon kooku mooy ki nga xam ne moo war a doon koo xam ne jëpp doom joo xam ne sosu na ci moom nekk koo xam ne ku sell lay doon ku teey lay doon ku aw ci siraatal mustaqima mën a gindi mboolem képp koo xam ne topp nga ko wala nga roy ko loolu lépp dafa duggoon ci xeeti tabarruj mu nekkoon bunt bu yaatu lool nag waaye ñu ñëwoon ba ci wal tuux fi di sawtaki dëhëran tushkari waxoon nan suufeel sa kàddu jigéen dafa war di suufeel kàddoom fu mu toll ñëwoon nañ ci ba indi ci misaal jigéen ji nga xam ne moom day julli te nekk fi aw nit ñoo xam ne rawat na ay jàmbur yoo xam ne mën nañu digg kàddoom kooku jigéen dañ koy wax ne ko na nopp na na suufeel kàddoom na wax ndànk ci suuf te wax ja léeg-léeg mu nekk ci barab boo xam ne sax day nekk sunna su feddali ko nga xam ne fekk ne góor muy julli tey bu suufeelee kàddoom noonu def ko ci njuumte su booba day am lu muy waral ci julli ga waaye nag jigéen fu mu toll ak nu mu sa nu mu war a sàmmonte ak kàddoom bi jóg ca kaw moo tax ñu ne ko boo julli nekk foo xam ne danga fa nekk ak aw nit sax yow jigéen nag suufeel sa kàddu àgg ba ci noddu noddu dafa bokk ci barab yi nga xam ne dafay xaraam te mooy noddu jigéen te noddu ñu taamu ci lool borom baat bu yëkkati ko lool waaye borom baat mu neex lool te ñaar yooyu yomb na ci baatub jigéen waaye nag loolu tax ñu wax ne jigéen ak noddam dafa xaram jigéen dafa xaraam muy yëkkati kàddoom di noddu comme noddu tur yàlla la nag te jàng alquran itam alquran mooy li gën ci lees di génne ci aw làmmeñ ñu wax ne jigéen bu demee bu koy génn ci aw làmmeñam te nekk fi aw ay jàmbur na suufeel kàddoom rawat na mu nekk ci julli te jàng alquran ci julli gën fu jàng ko ci lu dul julli dem ba àgg fu ñu ne ko nanga suufal sa kàddu kon leneen leneen loo xam ne waxi àddina rek la wala waxi waxi waxi neen loolu taxul ñuy wax mu nan ba agsi ci fi sëriñ bi di dénk soxna pan soxna Penda Diop wajjitani bil xiibata wa takabbura wasbati sukuuta wa tasabbura nanga moytandiku jëw ñëw nan ci jëw li aju ci jëw li ci alquran karim wax am li ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak li nga xam ne njàngale mi nga xam ne Sëriñ Tuubaa ridwanullahi alayhi uh, wax na nu ko mu aju ci wàllu jëw nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu diis la bokk ci uh, ñaar fukki bàkkaar yi nga xam ne mooy yi gën a màgg mooy yi gën a rëy nga xam ne dama jëlali yépp sax waaye benn boo ci nuur di ko def ba faatu te tuuboo ko rek man nga man nga man nga alaku jëw daf caa bokk ñëw nañ ci jëw ana lan mooy jëw ana naka la ñuy jëwee ndax jëw dafa bari ay xeet di nga di jëw ci saw làmmiñ da jëw ci sa ci say bët danga nga jëw sax nag ci say loxo wala nga jëw ci junju ak lu ko nuru lépp rek lislaam euh, euh, alquran indi na ko tey daf koo tere xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere ko mu bari lool nag te yaatu lool te nit ñi xuus ci lool te di ko def àgg ba ci def gi sax xam na ñi ngi koy def te bàyyi na xel ne ñi ngi jëw te fekk na jëw ba euh, nekk lu xaram àgg ba ci ñi nga xam ne dañuy toog sax nag fi jataay yoo xam ne dañuy jëwee ñoom ñu noppi ca wax ja jàpp ne mucc nañ ca bàkkaar ba te fekk boobu mucc ni ca bàkkaar ba ndax ña nga toog di déglu la leen di déglu amal leen itte wala tazunnu anna zanbal xiiba yaxtasul xaail fi l musiba wa fi lxadisi sallallahu alayhi wa sallama inna allazi xad yastamiun xiiba musharikul xaail fi ma yasma ki nga xam ne dafa toog di jëw ak ki toog di ko déglu donte yow waxu euh, àdduwa ca wax ja waaye yaa ngi koy déglu li muy wax itteel la nga di ko déglu yéen ñaar rek yéen a bokk bàkkaar ba kon bàkkaaru jëw rëy na lool yaat na lool yomb na lool itam ñu di ko faral di def ci bari bi bari lool te nit ñi duñ ci bàyyi xel ndax bàkkaar bi nga xam ne boo ko defee xam ne bàkkaar la nga wëlbatiku tuub ko jiggul sa borom subhanahu wa taala mu jiggal la ko boobu bàkkaar sax mën na ne mën na ne euh, mën na ne oyof na ak doonte bàkkaar du oyof waaye bàkkaar bi nga xam ne def nga ko te yow yëgu ne def nga bàkkaar jégguloo ko sa borom ci benn jamono loolu mooy bàkkaar bi gën a bi gën a bi jara gën a mën a moytandiku ci bàkkaar yi ndax man ngaa def loo xam ne ñëpp xam na ne bi bàkkaar la yow xam nga ne bàkkaar nga nga tuub ko jéggulu ko sa borom subhanahu wa taala waaye li def mu doon bàkkaar te yow xamoo ne bàkkaar la wala bo boo xamee ne bàkkaar la itam bari gu mu bari tasaar gu mu tasaaroo tax na yow bàyyiitoo ko xel ba di ko def saay bu ne nga koy def jamono ju nekk te yow doo ko tuub doo ko jéggulu bu bàkkaar bu bàkkaar bu jaram moytu la te loolu mu ngi ëpp ci jëw ñaari toog ci ab jataay ba jóg te jataay ba kenn jëwu fa kenn wala dégloo fa ab jëw lu jafe la lool ci jamono ji ñu kon jiblu matam moytandiku la loolu moo taxan Sëriñ Tuubaa di ko tere soxna Penda Jóob wàccani bi la xiibata wa takabbura wasbiti sukuta wa tasabbura kon eh, ñëw nañ ci ndénkaane ba ak si foofu insha allah taala dañuy taxawlu foofu tey bu beneen jamono bu ñu dikkee continuer ci ana lan mooy takabbura naka noonu lan moo nekk lan mooy as sukutu wa tasabbura ak yi nga xam ne moo ci aju ci tomb yi nga xam ne sëriñ bi mi ngi ko doon dénk soxna Penda Diop ci euh, yetu soxna Penda Diop mu nekk lu ama am solo lu jara bàyyi xel lu jara yaatal ci njaboot gi insha allah taala yal na suñu borom subhanahu defal ak dégg defal na ak topp ci war Seexuna Xaadim boo dem lépp luñ fi wax ci di ko digle euh, suñu borom subhanahu wa taala defal na ñu jiitu ci jëfe ga buñ ko jëfetu na buñ ko jëfewut sax nag suñu borom xeer na ci ñu di ko jëfe lépp luñ fi wax ci di ko tere suñ borom xiir na ci moytandiku ko wala sax bañ koo jëf su fekkee ñu koy jëfe suñ borom euh, génne nu ca bon set ca wécc ci wax si xanam xadim ma ngi jégul baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ففي مساياه لا يرتاب طيار وهو المتم ضوي الإسلام يوم عدا ميمتي كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار sëriñ bi de sëkk tey ëllëg war nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey